mun na fa am alors que mënul am fii avec le palais de la république donc il faut faire attention ñoom ñu bëri ñu koy kaas tey koo ci joxoon nguur gi du ko nangu dañuy wax nii rek dañuy wax parce que waxu politicien la koo ci joxoon nguur gi du ko nangu mhm. maintenant euh, am na beneen question bu nga boo ma laaj léegi mooy li dal journaliste yi kondaane naa ko parce que pour man policiers yi ñi ngi wax ils l'ont pas fait exprès à mon avis ils fait exprès c'est-à-dire que euh, opposants yi li ñu bëggoon lañu am c'est-à-dire créer benn guérilla en plein centre ville sànnante gars yi xaalis xeer excusez-moi euh, kii génn grenade lacrymogène yi génn dëkk bi yëngu ñu ne yëngal nañ dëkk bi après dem toog naan seen ataaya tranquillement reetaan seen reetaan waxtaan seen biir ne waaw day waaw Macky dañuy jaay kii rek dañ koy war naa nga wax naa nga léegi nag journalistes yi ñoom ils sont la pour parler de ça pour pour pour retransmettre ce qui que policiers ils ont compris que manifestation amul retransmission manifestation moo am donc retransmission combat bi de bi moo am mhm. ils ont dit on arrête le combat de comment on, on arrête la retransmission des combats de rue et comment on fait on attaque les journalistes donc j'ai dit aux journalistes mhm. que ñun sunu métier la dañ ko war a défendre et ni ko war a défendre mooy ñu réunir dem wax ak ñoom jàkkaarloog ñoom jël ay mesures bañ a toog rek seetaan man sama m'a quand même dérangé que loolu bi mu amee semaine bi ci topp journalistes ils n'ont même pas organisé une manifestation pour protester. Mmh. contre ça ay communiqué la ñu gis. communiqué oui ils auraient dû protester contre ça. et dire aux gens mhm. manque de solidarité wala. de solidarité manque d'engagement ah, manque de manque de réaction. Mhm. absence de réaction parce que quand bu kenn fàtte ne dëkk bi li fi nar a am at yi ñu jëm mosu fi woon am. mooy dañu nar a am benn président boo xam ne man boog damaa jàpp ne mënul nekk candidat en deux mille vingt 2024 donc du nekk candidat dafay dem buy dem ambition yi day bëri appétit yi day bëri donc ku ci nekk di nga xool nan nga def ba journaliste yi wax li nga xam ne mooy sa yitte buñ ko mënul wax nga am foo jaar ak moom donc journaliste yi moment bii lañ war a jël seen matuwaay regrouper waat corporation bi fédéré ko cimenté ko. ba pare taxaw. ba nga xam ne kenn du duñu néewal. kenn duñu ñàkkal fayda alors tey ji ci wàllu démocratie euh, boo doon tey ji natt. président Macky Sall par rapport ak Wade mais ak Diouf euh, ñi ngi fàttaliku nga defoon sa benn envoi boo xam ne yaa ngi nekkoon Walfadjri di wax ni le hmm. palais euh, Bourbon ressemble à <laughs> la Diriyanke sénégalaise alors tey ci manifestation manifestation yooyu tey jii boo ko boo ñu doon boo doon defat ab jàngat tey yàgg nekk ci terrain bi di couvrir ay manifestation nga méngale ko euh, gouvernement wu Macky Sall bi nga xam ne moom yàgg na fee toog comme ni nga ko waxee avant moo nekk ci nguur gi di dénoncer loo xamante ne ni moom la ñuy gis waaw parce que pour man loo gis mën na am ay avancement mën na am ay recul mais le problème fondamental de la démocratie sénégalaise et africaine en général c'est que ñun on parle de démocratie mais on n'a pas de démocrate est-ce que xam ngeen gis ngeen fi may waxee on parle beaucoup ñun ñëpp de démocratie mais on manque de démocrate parce que la démocratie c'est pas des textes c'est des gens d'abord et on n'a pas les gens on a de bon textes pour moi notre problème c'est pas les les gens c'est-à-dire ñoom la principe li tubaab bi woowee le principe de non contradiction du seen problème mhm. ku ci nekk au pouvoir lii ngay wax boo demee opposition wax lee mhm. da ngay gis kenn sax année bi mu nekk pouvoir wax lii année ba ci topp deux ans après mu dem opposition wax lee mhm. dix ans après mu nekkaat pouvoir wax lee donc ñoom suñu problème du problème mu texte problème mu nit la gis nga ñiy toog quelquefois fois dangay gis ku toog di ŋàññi président de la non président la r na nga wax na nga jëlal bandam ni xale yi di wax vaar bi nga def ko nga vaar ko ko cinq ans en arrière mhm. fekk moom mu ngi doon pouvoir il défendait l'exact contraire de lu muy dénoncer maintenant mais jàppoon yi comprendre nañu leen. non c'est que sénégalais yi pour man loolu yenn phénomène yi ci élection yi euh, xam nga euh, Fatou. Mhm. olof day wax uude ni mu la gisee. noonu la lay mhm. ëwalee. gaynde buggee. bu ñemee waxambaane ca doxin wala politiciens yi ñooñu respecté wul ñun sénégalais yi ñoom ñu ci bëri dañu jàppee ne ñun ay nit yu gaaw a fàtte lañ ay nit yu ñu mën a jënd lañ ay nit lañu ñoo xam ne suñu conviction day changer du jour au lendemain bu leen wóoroon ne ku ñu fi wax tey nangam suba nga wax safaan ñun ñu wan la après ne yow ñun du ñu say fowukaay dootuñu ko defati xam nga dañuy wax les peuples ont les dirigeants qu'ils mais d'une certaine manière c'est vrai sunu ñi ñuy diriger jëlewuñ leen Mozambique jëlewuñ leen pré Zambie jëlewuñ leen fenn sunuy mag lañ sunuy sunuy sunuy sunuy doom wala sunuy xarit ñu nag ñoom ñoo bokk fi ñu juddoo fi ñu yaroo maintenant nit da ngay am fulla te fulla mooy problème mu peuple sénégalais mooy problème mu peuple africain dama lay jox exemple rek ku mel ni Alpha Condé mi ngi fële toog Guinée ne dafay defaat troisième mandat Alassane Ouattara toog fële ne day defaat troisième mandat mais man damay wax toujours Alassane Ouattara ak Alpha Condé boo xoolee seen dispositif bi leen di gérer ñoom ñi ñu àndal ak ñëpp motuñu 800 personnes wala 1000 personnes. tout à fait ok Côte d'Ivoire nekk 15 millions de personnes mais comment 1000 personnes peuvent imposer leur désir et leur desiderata à 15 millions de personnes mais c'est parce que ku nekk day toog di xaar keneen ki dem régler ji problème bi. mais bu ñu xëyoon ñoom ñëpp bu doon ñoom dañ fiy nekk bëgg fi def lu ñu arrangé wul ñu xëy benn jour ñun ñëpp ñu génn jigéen ñi jiital seen doom góor ñi jiitu ci kanam ñu génn ñun ñëpp ne leen lii du fi amee du fi am. loolu laa la laaj sànq ne la ce que est-ce que est-ce que sénégalais yi demuñu politique yi ba jaraluñu leen wala boobu comme ni nga ko waxee les africains ñu wàcc mobiliser d'abord Fatou dañu war a comprendre que ne mhm. réew mi politicien moomuñu ko Sénégal la tudd donc sunu gaal la ñun ñëpp dañ ci bokk donc xam nga da toog fii ne bon politiciens yi dañu kii ba jaralatuñu léegi bu xewee damay dem toog noo du demee noonu de waroo toog da nga war a jóg. Mm-hmm. parce que nit du ñëw fekk la ci sa ci sa dund ne la sawaay lii kat nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy natt bi yow ngay natt man may natt keneen di natt. Mm-hmm. léegi jox leen ma ma nekk meeru mbootaay bi di jiite natt bi. Mm-hmm. ñu xëy suba mu teggil boppam. yéen ñëpp weer ngi natt bi ngeen di xool. le lendemain mu teggilaat boppam. ok beneen tour ñëwaat mu teggil boppam mm-hmm. yéen ci natt bi kenn du teggi ba pare ngeen mu bëgg chaque jour ngeen natt <laughs> ba pare ngeen toog di ko seetaan mm-hmm. naan bon comme mooy meeru mbootaay bi nag lu ko neex def non mënul demee noonu c'est-à-dire que ñun suñu peuple yi lañu ñu war a éduquer wax leen ne 800 personnes waruñu mën a imposer leur désir et leur désiderata à 15 millions de personnes. Mm-hmm. algériens yi ba ñu xëyee ne dañuy mettre un terme à ce qui se très forte là-bas mais dañu xëy dañ ko dañ ko teg ci suuf. donc euh, le est souverain buñ koy wax ci tubaab ñu bëri duñu dégg fu ñu fu nit ñi di waxee le peuple est souverain ça veut dire que réew mi waar réew mi ñoo ko moom du moomeelu diw